tas ñu ci barkeel di sant Cheikh Mouhamadou Fadl ma boole Serigne Touba te ñaan yàlla fayal ko te tayal tas ci ay barkeel di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général bi mooy mu yàgg fi loolu péwér ñoo koy waxe ba li muy liggéeyal ak li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba lépp mu àggale ko sago te nu fekke ko te ànd ko moom ci barke borom Touba di ñaanal borom kër gi Cheikh Abal Baraka Serigne Abou Khalifa Serigne Fall mu yàgg fi ba li muy liggéeyal ak li bëgg liggéeyal Serigne Touba ak li muy liggéeyal li bëgg liggéeyal Cheikh Mouhamadou lépp àndal ko sago te nu ko te ànd ko moom barkeb Serigne Touba noonu lañ ko ñaanale njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak taal di ko ak li wër Sénégal di ko xam naa kàddu yu gàtt lay doon rek ndax jaxee baa ngi bëgg yàgg te xam naa ndaw ko ndaa am na lu bëgg def ne am na lu seen xel dem bu ñu jotoon ci tuuti lu tàng te nii du wàññi dara jotaay bi bu ko defee ñu tëgg kàddu yi rek bu ñu jullee rek ñu mën a ñaan daal di ci yooyu ndax loolu la ñu leen di siyaare yi yëpp di siyaare sëriñ Modou fi nekkal sëriñ bi dama ko demoon sax na jël kàddu gi ndax moo yor baatu ci Ndakaaru kon bu teewee ñun ay surgaan lañ kon mooy suñ mooy suñ jëwriñ ci Ndakaaru waaye ci mbaaxam tax na nangu ma jël kon ñu leen ñu waaw ñu leen di sant yéen ñëpp rek eh, bokk yi fi teew yëpp góor ak jigéen ma ak ndaw di ko tàmbaleeg say shérif bi nga xam ne rek moo jàng euh, xatmu bi te loolu mooy lépp ndax alxuraan moom mooy lépp Sëriñ Tuubaa léppam alxuraan la kitaabu ko diini wa xilli wa muunisi hadaani bihi lhaadi wa nafsi bihi yàlla bi mooy sama diine kon alxuraan mooy lépp Sëriñ Tuubaa di sant bokk yi baax yi bi teew soxna Yaaram Mbàkke sëriñ Mamor ak sëriñ Moussa Mbàkke sëriñ sëñ Mandumbe ak bokk yu baax yi fi teew yëpp sëriñ Chérif ak bokk yëpp rek góor ak jigéen ak soxna soxna Maam Moussa mii door a ñëw ak bokk yi fi teew yëpp ñi ma xam ñi ma xamee ñi ma xamewul di fàttali ko borom kër bu tedd ji itam Cheikh Abdou Moussa Fadilou Mbacké ak rakkam ju baax ji Cheikh Abdoul ak Serigne Sidil Makhtar ni ñu ko waxee sànq nga xam ne moo joxe woon ndigal ci liggéey bi leen fàttali ko ak bokk yi daan àndal liggéey bi yëpp sëñ Modou Ablaye tàmbali woon na ko sànq xolam tooy Serigne Kane dégg nga sëñ Babacar Dieng ak ak ak ñu ko daan àndal ñëpp si Abdoul Aziz Mbacké bu sëñ Modou Moussa Fadilou ak ñu ko rek waa si sëriñ kan ñoom ñëpp rek nga ñoom ñoom ñoo liggéey bi te yàlla def ñu nekk ci geneen wet ga nga xam ne yàlla yàq yokk seen i leer te yàlla yokk na yërmande ak njëgal di sant presse bi tam nag wala ñoo tàmbali dara ndax presse bi gannaaw yàlla bu liggéey bi yaatoo yéen a ko yaatal presse en ligne bi wala presse traditionnelle bi presse écrite bi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm tey ñaan yàlla barkeel leen dafa leen jàmm dafa leen mucc dafa leen yokk ci ci liggéey jamono ji jamono yi communication lañ nekk jamono yi euh, réseaux sociaux lañ nekk jamono yi euh, euh, presse lañ nekk boo defee yéen ci yëngu rek dañu leen ci sant leen gën ndax yaa ngi àgg foo xam ne bu toll yéen dafa mën a àgg waaw kon nag àdduna sépp nga koy siiwal dañu leen ci sant leen gërëm te ñaan yàlla dafa leen cat di sant ñi ñi fi jël kàddu ñëpp na kàddu yi rafet na matériel na soit muy en anglais en français en espagnol ak en wolof wax ji matériel mat na sëkk defe naa ne thème yi ñu tànn thème bi ñu tànn rek mooy diini mooy lislaam diine yi jàmm la ak xam-xam ak jàppalente waaw te nit ñi bu ñu am bu amee jàmm am xam-xam jàppalente rek jàmm di jàll xew te te Sénégal te lu ñuy wax ne dañ ko war a contexté dañ ko dugal ci biir fi réew mi toll Sénégal naka jekk soxla na jàmm waaye fi mu toll la raw tension yi bari na yi fii bari na attente yi bari na moo tax ñu tànn thème bi te ni ngeen ko traité am na solo lool ndax gis naa ko nekk gis naa ko tàmbale ba ci yonent bi sallallahu alayhi ni nekkoon dine dine jàmm islam mën ngaa jàpp boo ne islam baa bi rek mu ngi jóge jàmm far ñu ne salaam mustaq mi ngi dérivé ci baatu salaam mooy jàmm kon islam ji ne jàmm la kon ku ci nekk ku nekk rek eh, da ngaa war di jëf jàmm di wax jàmm Sëriñ Tuubaa woon na jàmm lu gën fii xamul lu gën fa jëm yàlla nañu ko yàlla defal ah ufsu salaama wa sallu fi leyli wa naasu niyaam wa at'imu taam ba waajee ba ko yonent bi laajee nekk lu gën a gaaw ci dem ajee dafa ñetti mbir rek del joxe ñam del tasaare jàmm bu nit ñi tëddee guddi di nelaw jógal di julli antu antu taam wa afshu salaam wa sallu fi leyli wan naasu niyaam waaw kon dañ leen joxe ñam wala joxe dañ joxe xéewal di leen tasaare jàmm te bu bu dee suuf sedd ba ñuy tëdd diw leen jëm seen borom yéen di julli kon jàmm dara jiitu kon lislaam ci waxul diine jàmm diine xam-xam la itam ndax ni ko waxee yéen ñëpp mooy ummatu iqra ñooy la nation de iqra lii ba aaya bi njëkk wàcc alxuraan mooy jàngal aaya bi njëkk wàcc mooy jàngal kon diine jàng la diine xam-xam la diine yu gëstu la kon jullit bu nekk dafa war a gëstu bi mu juddoo ba ni muy génne àdduna dafa war a gëstu jàng xam-xam amuti eqal diine tadaamun la solidarité diine jàppante jàppante goo xam ne islam da koo digle islam da ko jàngale yonante bi wax tudd ngeen ko ay yoon exemple yu bëree bëri ci biir islam da ko ci njëkk mooy muwaaxaa ba nekk fraternisation bi ndigoon diggante muhaajiriin ak ansaar bañ gàddaay jóge Makka dem Madina fekk fa ay nit yonent bi mbokkale leen ndax ñoom dañoo jógee Makka bàyyi seen i alal seen lépp gàddaay ngir ngir ngir ngir sàmm seen pas-pas sallallahu alayhi wa sallam ak yéen mu boole leen kenn ku def tànn ku mel ne mooy yaay sa bokk nga xam àggul ku ci am ñaari soxna da ngay bàyyi benn ba mu bu bu defee idda ba ba ba jeex nga jox ko sa sa mbokk wala ci bëgg da ngay wàcc ñaari soxna yëpp wala juróom-ñett buñ buuroo ba noppi nga ne ko tànnal ko ci bëgg ñu jox ko loolu am na gars yi bu nga bëggoon defal tey coow dana bari waaye teewul seenu ngëm ak seen bëgg lu baax taxoon nañu nag ku ci am ñaari tool jël jox benn ba sa bopp ku ci am ñaari fas jox benn ba sa bopp kon solidarité yàgg na ci lislaam naka jekk ci histoire lislaam moom loolu ànd ba ni ngeen ko tuddee sëñ Touba léegi naan yéen ñëpp tudd ngeen exemple sëñ Touba ni mu indee solidarité yoonu murid ni ñuy solidarité defe naa mën nañ ko fukkaréewu fu ne waaye ni ñuy tasaaree jàmm itam mën nañ ko tusoo fukkaréewu te damay wax jàmmi Sénégal ak Sénégal li koy lëndee fi ñu toll ñun ñëpp ngeen xam ko mooy ñaari mbir fondamentalement mooy mooy politique ak sport ci la coow li bare bare ba te lépp jàmm la sport pratique la boo xam pour defar yaram la xaj na dem na ba nekk industrie léegi di indi alal di indi xaalis waaye départ ba pour defar jëmm la woon parce que dafa baax dafa baax ci jëmm baax dafa baax ci dundu góor ak jigéen mag ak doom ñëpp ko a def mais mu dem a dem nag ba léegi nag business nekk business nekk industrie sa far di di générer ay ay milliards a a xam li li ñëpp bokk dénk leen ma ko ma saytu leen ko kii ne li ñëpp bokk dénk leen ma ko ma saytu leen ko loolu kay jërul waxante lu ñaaw ndax yow moomuloo ko mayuñu la ko jëndoo ko saraxuñ la ko donnoo ko dañ la ko dénk pour pour ana un temps déterminé kon yàgg yàgg di ci génn ci loxo diggante seen koy jox diggante seen koy yor bu ca wax lu ñaaw bu ko def bu ca def jërul wax lu ñaaw jërul def ca lu ñaaw ndax lu ñu nett li balaa yàgg histoire du Sénégal nag dafa yàgg mouvementé li ngeen di wax mouvementé yàgg yàgg yëngu yàgg bari violence waaye damay wax ne lu ci bari génération yi fekki wuñ ko ndax fi ñu ci ëpp ne borom xool moyenne d'âge bi daanaka 35 ans la wala jëm 40 jëm jëm jëm mais benn benn yi nga xam ne fekk nañ ko wala ñu dégg ko diggante Lamine Gueye ak président Senghor lu ne xew na fi te yii xew yëpp loolu am gënoon a garaaw damay wax ne bu ko dellu ci histoire du Sénégal yii xew bu la jaaxal nuróo na ci wet waaye loolaa gënoon a garaaw ndax jaxase na ay kër jaxase ay tariqa jaxase ay mbokk ñu rey ci ay nit lu ne xew ca waaye dañu wujj woo te président Lamine Guèye moo fi indi président Senghor fekkoon di jàng Senghor daan wax ne dafa dugg ci politique par accident da doon jàng di def ay recherche ñëw Sénégal pour bëgg préparer une thèse sur la poésie sérère président Lamine Guèye gis ko mu ku intelligent la mu waxtaan ak moom mu convaincre ko ba mu dugg ca Sofio parti ñuy dem di dem di dem di dem di dem ba xam nga réero réero politique ñu dem ba lu ne xew fi ay rayante am ci ay lakkante yu kër ay plainte bu ne xew na ci lu ngeen imaginer rek xew na nit nekk na di meeting ñu dóor ko bala mu dee nit nekk na di meeting ñu jam ko paaka bu faatu ay kilifa dem nañ ba dóor ñu waxante te politique rek te dañoo dem ba ci fin bi dañoo mujj booloo il se ak ak ak BDS ñu fusionné créé UPS Union progressiste sénégalaise bokk parti Senghor di président de la République Lamine Gueye di président de l'Assemblée nationale de 60 ba 68 kon kon nga xam ne fi ñu toll bu ñu dàq mukk président diw ak président diw ñu ànd ëllëg soo ko waxee day mel ni Guérit président Macky Sall ànd ak président Sonko ñu ànd liggéey soo ko waxee day mel ni Guérit waaye bu ñu ko daq parce que politique la te am benn politicien bu mag daan wax politique dara saxu ci lu dul géographie rien n'est en politique sauf la géographie am nay jamono ku ne woon président Senghor ak président Lamine Guèye danañ ànd dañaan la yow da ngaa wéru fi ñu toll nii président Macky ak président Sonko ànd liggéey buñ ko dàq politique la du alxuraan du lu jëm ëllëg àdduna képp la te te mën naa évoluer donc lu ciy xew rek nañ ci boo rek dal moo tax te mu jàmm bi ndax bi mi ko soxla passion yi yëngut na passion bi doy na waar yëf yaa ngi gën a jege yëf yi gën di bax te dara dara nag sëñ Saliou Mbacke mu baax ma leeraloon nañu ko ne woon na politique moom weesuwut ñaar bëgg falu ak bañ a falu ko rek weesuwut bi lu coow bari bari rek ki nekk au day def lu mu mën ak lu mu xam pour des au ki bëgg accès accéder au pouvoir day def lu mu xam ak lu mu man pour accéder au pouvoir ñaar yi rek la yooyu lu ñaaw jurul saagante jurul lakkante ay kër jurul rey ay nit jurul yàq alal li ma bëgg a wax rek mooy dañoo war a delloo si xel delloo si eh, xam ne Sénégal ñoo ko bokk te it kuñ fi dénk dara lu mu réer yi juddu nga lu yàgg yoroo ko te boo toggee ci dootoo ko yor waaw si nga xam Mbàkke bu baax ma na lu la romb ah. xel wa neex rek ba mu jógee yàgg loolu dafa dem soriwul maanaam course da allure kenn mënu ci def mu ne lu la yomb xel wa neex rek ba mu jógee yàgg loolu dafa dem soriwul kon nag loolu boo ko defee rek day nekk règle boo xam ne boo ko appliqué da ngay mën a dal ci yu te réew mi da ko soxla boobu gis nañu tànn thème bi loolu lañ ci xalaatoon te dégg nañ ni ngeen ko traité gis sax invité ngeen yu bare bari tudd leen ko waaye man damay tudd li nga xam tudd leen ko ndax lii mooy li li wala wala wax année calme coow te dara jëru ci reyante ndax lu ci nekk rek day jàll mais lu ñu ci dénk lu mu rëy rëy rëy ab mandat la wala ab nomination juddu nga lu yàgg yoroo ko boo toogee tudd dootoo ko yor kon diggante ba nga ko yor jërul waxante lu ñaaw ana président Abdou Diouf ana président Abdoulaye Wade ana président Senghor ñu ko jiitoon ñu des ak ñeneen ñeneen ñeneen li fi nekk itam lu mu yëngu-yëngu rek dañu daal Cheikh bu baax bu ma tudd tam ne woon na mbir lu mu yëngu-yëngu na nga na nga dana dal na nga seet dal nga ndax buy dal bañ laa yu bare lu mu yëngu-yëngu rek ay xel ñu ko kenn kenn moo ci dëkk kon bu ko defee rek bu ñu xamee ne ay jullit lañ ay sénégalais lañ ñoo bokk réew mi ñoo bokk njaboot bi ñoo bokk suuf si mënuñoo toxu feneen te li ñu wax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar te boo ko xaroon tam da ko boole da nga ko faj te coolal lay indil rek ndax boppu xar bi nga si jëlee foofu faj ko faj faj ko bu ko defee nag ñu ko li ñu bokk xam ne mënuñu ko sédd Cheikh Abdoulaye bu baax mu bëri daan wax ne ay nit ñu bokkee loo xam ne mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale kenn mënu ko jël bàyyi sa morom dañuy rafetal bokkin te loolu mooy réew ma réew mooy bokk yi loolu mooy diine Sénégal dafa tuuti yoo xam ne dafa tuuti koo fa gis rek sa mbokk la mbaa muy sa mbokku mbokk wala muy sa xarit wala muy sa xaritu xarit kon bu ko defee wax lu ñaaw ak def def ñaaw xarit fi boo ko defee da nga koy rëccu te lu ñu fi ñàng ñàng mën nañoo juboo waaw bu ko defee la loolu si am laa ne woon lu mbir yëngu-yëngu na nga seet dal ga ndax bu dal dañ laa ndax ay ay xel mu mënu si dëkk foog day mas a rek kon bu ko defee rek moo taxoon ñu tànn thème bi mais xam ne nañ ko te di leen nokkeel nag ndax ñeen ngeen ko traité ak jataay bi xañ na xañ ba mboolooy moo nag na bari cadre bi moom na gën a changé mais nag valeur li ngeen wax kenn mënut a wax lu ko lu ko weesu su ngeen ko defoon grand théâtre wala so wala Sorano la xawma wala Masali wala fu ngeen ko mën def wala Cissé mënuñu faa wax lu lii wolof nag dañoo bëgg dañoo bëgg spectacle ak ak lu yëngu waaw ndeysaan moom moom nit spectacle la am na génn kilifa dafay wax ne bu yàgg diw day def politique spectacle waaye ñun dañoo dem a dem sax bay def léeg-léeg religion spectacle sax lañ koy defal loolu nag ci ñun la moom dañu ko dañu ko mooñaale waaye nañu góorgóorlu rek dellu ci njàngaleem sëriñ bi jaan dem ci ndigli sëñ bi xam ne lu ne lu ma a wax wax na ko lu mat a def na ko te itam réew mi sëñ Tuubaa nekk ku yëpp rafet fa njort lu coow li bari bari lu menace si bari bari lu ñàngal bi bari bari jàmbari ki fi mujj ndax li mu ñaan boromam moom coob wax na ko ni li mu wax yàlla yonent bi sallallahu alayhi salaatu wasalaam ku ko waxoon aw doj sax mu xel mu xel li ndox lu ñaan na ko lu wax na ko lu ne wax na ko yàlla yàlla ak borom te te yàlla te te yàlla nangu na lépp te nee na sama lépp yàlla yàlla nangu koo xam yàlla nangu na sa lépp nag lay won lam lam nangu jàmm jaa ci yëpp te it dafa wax ne sama yoon rey melentaan bokku ci melentaan bu mos koo rey nga xam lu lu ko doon lor tam dafay bàyyi noonu rek la ca gën a kéemaay nag mooy bu ko dara doon lor la tax mu koy bàyyi du ko faxas bu ko yoo doon matt wala lor wala dara wala dara du ko faxas day bàyyi rek ndax mu ne bu la dara dee matt nga di ko faxas instant ba nga koy faxas sa xel ca loolu lay nekk dana génn ci yàlla te moom dara am nag li ci biiram dara war a tax lu war a génn xelam war a génn ci yàlla am amu ci kon kooku fa mu nekk beneen mbir la kon kooku ku mu sëb sëriñ maanaam sab soppi bàyyi say lépp hmm. da ngaa war a am auteur ci li koy def ndax dañoo wax ne dañoo wax ne euh, euh, euh, li taxoon ñaari mbir nga xam ne ci moom laa ko mos a dégg dara du ko matt wala kii ba mu faxas ko du sol mbubb mu am poche ñun ndongo yi fi ne ba seeroon xamu ñaata poche daa am daanaka xanaa mën na fukk ak juróom poche ak juróom waaw te booy dugal dara dama koy wax ne da nga koy dugal ba ci biir nga téye ko fa door a génne sa loxo ndax ndax wàññi wadd moom moom mosu ko am te mu ne li tax amu ko mooy boo amee poche def ca dara dana am jamono nga soxla nga soxla la ca poche ba boo soxla la ca poche ba da da nga ci dugal sa loxo di ko làmb mu ne jamono ja nga koy làmb sa xel ci loolu lay nekk kon dana génn ci yàlla adduna nag li ci biir nag lu jar génn xel ci yàlla am eh, ko boo doon seet nga ne koo xam ne mos am bu mu am poche nga ne Serigne Touba bala ngaa wax waaw nga ne bala ngaa wax ñaareel dégguma ko ci moom laa mos a déggee ku am ku dul am poche waaw ah, ngi dégg ñu ngi dégg voilà kon ci moom laa mos a déggee ku ku mësul am poche te poche kenn tëréwu ko araamut sallallahu alayhi wa sallam sax moom wax na ne adxaltu nafsi wa jamia ahli fii jëy bi afdalil wara zil fadli kon afdalul wara mën a jëy dañuy baax baax nga xam ne kii ko wax moom kenn xamul lu mu doon ñun ñëpp dugal nañu ci poche yonente bi adxaltu nafsi wa jamia ahli yëpp du mooy ñun fii jëy bi afdalil wara zil fadli waaye moom mi ko wax mësta am poche ndax waaw ndax la tax mun ko am poche gën a kéemaane ndax booy làmb dara sa poche instant boo koy làmbi sa xel ca loolu lay nekk kon génn ci yàlla loolu moo tax lu koy mat wala lu ko kii du ko faxas kon kooku ku muy sa modèle ku muy sa sëriñ sa royukaay da ngaa war a am auteur ci yu baree baree baree da ngaa war a def sëñ Saliou Mbacké waxoon ne ne rey ku baax baax na ndax soo mënta mel ne moom da nga raw sa njëkk sa sa maas fexe ba ñun ñëpp ñu raw suñu maas rek ci royoo ko sëriñ Touba mi nga xam ne modèle la ci wàllu yëpp modèle la ci jàmm modèle la ci xam-xam modèle la ci solidarité modèle la ci sëñ Touba preuve bu mooy mës a mës a mës a natt asaka asakay at parce que ko def parce que asaka boo ko bu tax nga natt ko foog mu am al xawla at foog nga jël alal ji denc ko fenn mu am nu mu toll nisaab mu nekk fa at doo laaloo ko asaka door cee war suñ tubaab denc dara ba bay natt asaka di moom denc dara lu muy denc dara ñëw rek mu def moo taxoon naru gànnaar ba ne ko alal ji da nga koy tasaare mu mel ni day xaw a lakk sa loxo tafarraqatil amwaalu minka sadar madar banaanuka laa tubqi wa kafuka laa tadar yow da ngay mel ni alal ji la ñëw sax day xaw a lakkase te du ko laal loo ko mën a tegal foofu nu mu toll nga ne ko mu tegal foofu nañ ci def nangam nañ kon kooku ku muy sa sa xel dafa war a dal bëgg rek mooy ñu xam ni rek Sénégal ñu war a dalal xel yi gën a am yaakaar xam ne réew mu Sëñ Tuubaa nekk jàmm rek a fee xew xam ne tam lu mu bari bari dana ma te bu te gannaaw dana ma sa dal nag dañu seet dal ga ndax buy dal bañ ñoo bañ ñoo yóbbaale waaw ndax ay xel li ma ko waxee di ko si ëpp dal mu ngi dëkk waaw cour course de forme mën dëkk da ngay daanu mbaa nga xam mbaa dara rek waaw waaw bu ko yàlla nañu yàlla dimbale yàlla yàlla faj aajo yëpp rek ñu sant ñëpp nag góor ak jigéen mag ndaw mbokk yi fi teew yëpp ak waa presse ni ma ko waxee ndax seen liggéey dafa am solo moo tax ma ci gën a insisté di sant sama mbokk yi baax yi fi teew yëpp ci turu borom kër gi nag di Cheikh Abul Baraka mi nga xam ne moo ñu dara moo moom kër gi moo yor liggéey bi lépp nañu koy def ci kilifteewu Cheikh Ndol Mountakha mi nga xam ne ni nga ko xam ne nga waxee ci njàngale ma ak wayaf ga ak taalibe ga ak daara ji mu ut bërki démb nga ak ak nii mu taxawee xasiidee ci koor gi loolu ab ab soññaat la ab jaajuwaat la ab bind bu koy sat la waaw kon bu ko defee rek ñu ko ñaanal mu yàgg fi lool te it suñu jumaa ji sëñ mu ubbi si koog moo moo tegoon xeer wi sëñ mu taxaa tegoon xeer wi kon nag ñu ngi ñaan mu ñëwaat jàmm ubbi koog jàmm te ñu fekke ko te sëriñ Abo mi borom kër gi yàlla yàggal ko fi yàggal fi njabootu dañu fekkee ko at yu bari lool te nawet bi ñuy dugg yàlla def ko nawet bu barkeel waaw waaw ñu fekkee ko at yu bari nawet bi ñu dugg ñu dugg ci bismillah rahmaan rahim génn ci ak abdu alhamdulilahi rabbil alamin te 2024 li ñu ciy ragal lépp yàlla na accès ak jàmm te jàll ak jàmm te ka gën ci Sénégal nag am la gën ci moom waaw ka gën ci Sénégal yàlla na am la gën ci moom lépp jàll ak jàmm bañ toogee di ko waxtaane ci barke borom Tuubaa yàlla na yàlla faj aajo yépp wa axiru daawaana an alhamdulilahi auzubillah bisimillah ina wali yàlla way ni yow uzuka biha wa zuriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min xamaasati sayaatini wa auzu bika rabbina yaxdurun mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu di siyaare di jiital nuyoo di ñaanal Serigne Mountakha Al Basir mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di si toftal Cheikh Modou Menda Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ko ñaanal bépp mbokk taalibe ak boppi béppi bu nekk si yoon bi bu ñu yëg bu waa ren nag dañuy dañoo jógee si journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba muy douzième édition ñu yàgg koo ñu yàgg koo yàgg koo fësal te yàgg koo feete si ay mbégte ak yu demee noonu maam journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba booy xool li ko waral sax daanaka booy xool maam journée mondiale Cheikh yeneen am na journée mondiale de la musique ak la danse ay rasta ak yu demee noonu bëri na xeet yooyu noonu moo tax su ñuy jëwriñ jëwriñ Ousmane ak jëwriñ euh, Abdou Mbaye ñu am si xalaat bu bu ne pourquoi pas ñuy def journée mondiale si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fii si parcelle marché bi nag daanaka depuis première édition bi ba nii lenn changé wu si lu dul yokkute rek ab mbooloo ñu ngi koy tàmbalee si garage moto la ba jëm kër Sëñ Modou Bousso jër jëfe Serigne tubaa bi dañuy yëkkati bu ñu xëyee suba del dañuy jàng alxuraan kuréel si yëkkati xes di mbooloo bi daje ñu dajaloo soxna yi nekk suñu ginnaaw góor yàlla yi féetee kanam ñuy jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. ndax it maa ngi dégg benn kilifa daan wax naan jërëjëf Serigne tubaa di ko tuddi rek ñaan féetewu ko kaw comme jërëjëf Serigne tubaa ñoon amuñu fayam te marche bi marche pacifique la leneen raxu ko lu dul jërëjëf Serigne Touba la ñuy tudd comme mbooloo bi dañuy daal di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf seen maam